citoyen électeurs yi am nañu sañ-sañ xam kanamu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nar a téye politique publique ci at yii di ñëw presse nationale dugg ci nag ngis ko nag ci yéenekaay yu bëri ne askan bi ñoom ñi ngi xaar liste gouvernement bi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko jiite mu daal di génn ñu xam yan góor ak yan jigéen ñoom ñoo war a jiite nguur gi kii di président bi ak premier ministre bi ñoom war nañu sóoraale pression bi nga xamante ne lu jaadu la te askan bi di ko def ngir xam ñan ñooy membre gouvernement bi waaye bu weesoo pression askan bi président de la république ak jëwrin bu njëkk bi war na nañu moytu tombe ci benn piège boo xamante ne pression la buy jóge ci parti politique yi buy jóge ci ñi nga xam ne ñoo leen jàppale ak buy jóge ci milieu d'affaires yi buy jóge sax ci këru diine yi ak këru cosaan yi ba ci wàllu waaso ñooñu ñëpp di teg pression ngir ñu gis seen bopp ci gouvernement bi muy pression boo xamante ne bu mën a indi ay musiba la ndax kat mën na détourner président de la république ak ki nga xam ne mooy jëwrinam bu njëkk ci li nga xam ne moom la ñu jiital ngir tànn ay membre gouvernement critères yi ñuy tànnee ay ministre ci république dafa war a dëppoo ak mën-mënu ministre bi nga xam ne dina mën a joxe ay orientation teg ñi mu jiite ci raay bi te tamit xam li ñu ko dénk lan la te mu am ci xam-xam discours 3 avril bu président Bassirou Diomaye jaxaar Faye tax na ñu mën a xam bu leer fan la gouvernement bi nar a jëm njiit réew bi tam jël ay engagement boole kook engagement yi ma jëloon ca campagne électorale loole yëpp dafa war a laytaay li nga xamante ne mooy tànn bi ñu war a tànn jawriñ yi choix yi nga xamante ne dëppoowul ak projet de société bu njiitu réew mi ak programme am bu ñu ko defee day mel ne clientèle politique la ñuy sóoraale te xam nañ lan la mën a jur ci fonctionnement wu ministère yi ak nguur gi loolee doon choix yi nga xam ne gënul ndax bu fekkee dañu bëgg a teg ay choix ci wàllum politique du jur benn njëriñ président de la république di Bassirou Diomaye Faye dafa war a moytu dafaat même erreur yi nga xamante ne daan na am ci nguur gi ministre yi bu ñu leen tànnee amul kenn koo xamante ne da nga war a wuyu ci benn diine wala ci benn waaso wala ci benn xeet ministre Sénégal yëpp nga loolee nag buñ ko sóoraalee dinañu xam yenn ministre la ñuy teg ci nguur gi ngir ñu mën a dabu njëriñu askan bi